spectateurs de Desport TV, bonjour. Nous sommes aujourd'hui ici au Centre sportif de développement technique de Jules François Bocane pour immersion avec l'équipe nationale locale du Sénégal de la préparation de la Chan 2025. Je vous rappelle que le Sénégal était champion en 2022 avec Pape Chow, un nouveau coach, Souleymane Diallo, qui tentera de réitérer cette prouesse en 2025. Nous dugg gisante l'entraîneur Souleymane Diallo également jël quelques joueurs yi nga xamantene dañ sélectionné ci équipe locale comme nous koy tàmm di des sportifs c'est la passion du sport des sportifs ce mu ngi donc ñu daal di dugg ci biir rek jéem jël entraîneur ak les joueurs. sélectionneur équipe nationale locale du Sénégal Suleiman Diallo Suleiman nous nañ la ñu bàyyi la nga nuyu téléspectateur des sports mais maa ngi leen di fay waa des euh, remercier si immersion bi ngeen dans la tanière euh, locale. Mhm. di nous seen téléspectateur yëpp di rafetlu effectivement seen liggéey. dans le jargon du du sport donc dafa di am liggéey boo xam ne solo bu baax merci aussi ci disponibilité alors comment vous avez vécu cette transition après le sacre de Pape en 2022. donc euh, la transition elle est normale dans toute chose. Mhm. parce que effectivement la euh, performance sportive ou même le sport en général c'est un cycle. Mhm. donc euh, tout le temps les compétitions arrivent il faut effectivement se préparer à ces, compétitions. Certes, les gens peuvent changer, mais effectivement, la compétition demeure. Donc, parce qu'elle est déjà périodisée et que nous, euh, ça nous fait un grand plaisir mhm. vraiment de pouvoir assurer cette transition. Je ne le considère pas d'ailleurs comme étant une transition, mais pour moi une continuité parce qu'effectivement le football il est inscrit, il est inscrit dans ce, en ce sens-là, dans la continuité. Mhm. Et je pense que nous serons à la hauteur mhm. de, du leg laissé par le collègue Papchao mhm. et pour pouvoir effectivement assurer ou laisser là où il a, laissé l'équipe. D'accord. Quelles ont été vos premières actions et propriétaires en prenant les commandes de Papchao ah oui, comme tout entraîneur, effectivement, c'est vrai que je suis très jeune, mhm. mais j'ai l'opportunité de, fréquenter plusieurs sélections. Donc j'ai une petite expérience africaine. Aujourd'hui, je pense que je fais partie de l'un des doigts mhm. des, différentes euh, sélections après Céline Saludia. Mhm. Euh, donc pour moi, euh, après comment nommé comme sélectionneur, comme tout entraîneur, il y a un travail en amont souvent ce que les gens voient le jour du match ou bien les entraînements, mais il y a un travail en amont qui se, qui se fait et c'est le travail le plus important. Donc euh, lorsque j'ai été nommé, effectivement, la première chose, c'est de prendre contact avec le collègue. Mm-hmm. Donc euh, on, en a, on en a discuté. Mm-hmm. Et après, voilà, on s'est mis directement dans le travail. Mm-hmm. Le travail, c'était quoi, effectivement Aller regarder les garçons sur le, sur le, sur le terrain. Euh, je prenais le temps personnellement d'être sur le terrain, d'aller les voir. Mhm. Et à cela s'ajoutent également les grilles d'observation que j'avais mises en place en confiant certaines tâches à mes étudiants, en identifiant des postes. Mhm. Et souvent, si je ne peux pas me déplacer, parce que je ne peux pas être dans tous les, terrains, euh, je, je mettais effectivement en relais mes étudiants mhm avec euh, à la base une grille d'observation, mais également à vos collègues, euh, à vos mhm. camarades, euh, des journalistes, mhm. des collègues entraîneurs, mhm. parce qu'effectivement, il faut reconnaître que c'est le football local. C'est un football qui concerne tous les Sénégalais et c'est un football qui se joue ici. Autrement dit, tout le monde est au parfum de ce qui se passe au niveau local. C'est pourquoi, pour moi, c'est un excellent témoin tout ce que tu peux faire, les gens sont au courant de ce que toi tu fais. Effectivement. Mm, mm. En quoi votre style euh, de coaching diffère-t-il de celui de Pape Chow En réalité, je ne pense pas qu'il y a une grande différence entre Pape et moi. Euh, d'ailleurs, je pense que euh, nous avons déjà le même système de jeu. Mhm. Donc nous, allons, nous, allons, nous avons travaillé sur le même dispositif. Mhm. Peut-être l'animation peut différencier, mais là, on a le même, on a le même dispositif. Et encore euh, pour moi, dans le football, c'est vrai, souvent les gens pensent qu'il y a une grande différence. En réalité, il n'y a pas une grande différence. Mhm. Euh, dans le football, il y a cinq moments. Mhm. C'est quand tu as le ballon, mhm. quand tu ne l'as pas. Quand tu as le ballon et tu viens de le perdre. Quand tu n'avais pas le ballon, tu viens de l'avoir. Et le cinquième moment, c'est les phases arrêtées. Et chacun de ces moments-là, il y a une manière de les appréhender. Et puis, il n'y a pas. C'est vrai, il peut y avoir mille manières, mais seul objectif, chacun de ces moments-là a un objectif. Et tout le monde, tous les entraîneurs s'inscrivent effectivement pour donner les exigences de ces moments-là. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il y a une très très très très grande différence entre ce que Pape faisait et ce que nous sommes en train de, de faire. D'accord. Alors, euh, Yann, moi, c'est objectif court terme à long terme par rapport à cette équipe locale. Heureusement que la question est très très très bien posée. Mhm. D'abord, il faut passer par l'objectif à court terme. Mhm. Souvent, on anticipe trop au, mhm. Sénégal, mais ce qui est le plus important, c'est l'objectif à court terme. L'objectif à court terme, c'est mettre en place une équipe compétitive. Et c'est l'occasion pour moi de remercier la Fédération sénégalaise de football et le directeur technique national, effectivement, qui m'ont permis effectivement d'aller euh, superviser l'équipe euh, avec laquelle nous allons nous opposer au deuxième, au deuxième tour. Et là, nous sommes mis dans des conditions pour pouvoir mettre en place une équipe compétitive. Mais après avoir atteint cet objectif auxiliaire, il y a bien entendu un second objectif auxiliaire qui consiste effectivement à passer le Cap Libéria. Et après, nous allons nous relancer pour le, pour le championnat. production locale bi Pape nuyu nañ la. maa ngi leen di fay aji. ñu bàyyi la nga nuyu téléspectateur des sports yi. asalaamaaleykum euh, maa ngi nuyu téléspectateur des sports yëpp ak peuple sénégalais bi yëpp. Mhm. tey euh, lan la la def le fait que ban ressentiment nga amone bi nga joté li nga xamante mom moom mooy convocation. waaw c'est toujours une satisfaction ah. wax dëgg yàlla ñu woo équipe nationale locale. Mhm. Wa, vraiment c'est un honneur. Mhm. doo ci def lu dul kontaan quoi vraiment le fait que nga am opportunité représenter celle que le Sénégal surtout l'équipe nationale locale. c'est une fierté comme ni tout à l'heure parce que bon après ce match contre le. contre Agel contre voilà exactement ci le coach intercepté pour me rejoindre le groupe. Mhm. voilà non d'aller demain donc lula la bête mhm. donc je suis yek dal bu rëy quoi macha allah. ñu ngi taxaw ak euh, le gardien de but de l' équipe nationale locale du Sénégal muy Marco Diouf Marco nuyu nañ la. waaw ah, ñu ngi lay fay. ñu ngi lay fay aji. Mhm. ñu bàyyi la nga nuyu téléspectateur des sports yi. waaw ah, man maa leen di nuyu waa def ngeen euh, liggéey bu am solo ñëw.

jour bu nekk ñaan na yàlla ñu koy woo équipe nationale. Mhm. moo tax buñ ñu buñ ñu wooyee duñ ci am duñ ci am benn bettel lu dul dem def ñoom li ñuy xaar si ñun rek. d'accord lan la la def le fait que tey jii nga war a représenter surtout équipe nationale locale pour ci compétition bi ngeen di waaj a dem. waaw équipe nationale moom jour bu nekk ñaan na yàlla représenter sa dëkk. Mhm. waaw ci rawatina ñun ñu xam ne ay xale nañ dafa dara ci football bi nag te représenter sa dëkk manam loolu amna fu bëri fum la meuna yob ci fu walu football. toujours ñu ngi ak euh, Cheikh Thiam ci équipe nationale locale Cheikh nuyu nañ la. waaw aji ñu ngi lay fay ñu ngi fay internetu desport sports yëpp. Mm. voilà ñu ngi ñu Sénégalais aussi. d'accord tay bi nga jotee convocation bi ban sentiment nga amoon. Euh, je pense que comme ni may wax chaque jour rek ñew équipe nationale mom sentiment de fierté la parce que je bu que buy football des rêvé ñëw l'équipe nationale donc la moindre des choses bu ñu convoqué c'est nga fierté parce que nous défendre euh, honneur nation Nous avons un am privilège pour nous. pour un privilège c'est mhm. une chance aussi du du du loo xamante peut-être mérite quelque chose comme ça certes ligue, le moo la ko may mais c'est une chance parce qu'il y a des milliers de joueurs qui ont le championnat et nous pour nous finir. Mhm. Comment percevez-vous l'opportunité de représenter le Sénégal au niveau local Je pense que c'est une bonne opportunité pour, nous ressaisir. Je pense que le euh, Sénégal, nous avons fait récemment avec euh, l'équipe nationale locale. Nous sommes champions d'Afrique en titre. Donc, nous avons fait flambeau, nous avons fait Donc, nous avons continuer la Ligue.

Euh, bi suis convocation ça m'a fait plaisir parce que je pense que la sélection locale. Mm. saison mm-hmm. ça me motive que nous woo ma mm-hmm. la que opportunité pour représenter surtout l'équipe nationale locale du Sénégal comme ni avons ça me fait plaisir. Mhm. Nous taxaw euh, Seydou Ndiaye qui tamit mu équipe euh, locale au Sénégal Seydou téléspectateurs yi Nous mhm. euh, convocation sentiment nga contenté rek contenté parce que voilà c'est c'est mon première convocation là voilà di ñaan yàlla mu bañ a yem fii. première convocation biñ koy jot fan la la fekk foo nekkoon. waaw mi ma fekk <laughs> sama sa suñu kër. loo def. Euh, ma doon nelaw. après ma yeewu fait fekk sama famille yéegoon nañ ko ba pare quoi après ça on ñu ma koy annoncé woon noonu. tombé Cheikh aussi envoyé woon ma liste bi après si laa dugg. Mhm. voilà. Mhm. neexoon na ci yow. waaye trop. <laughs> toujours à tubaab Dialaw donc tey nag yendu lañu def bi première mi bi jàllee ci euh, match amical bi doom équipe nationale locale bi doom def contre Guédiawaye mi-temps ñuy jël kii di Layus Samb Layus suñu bàyyi la nga nuyu téléspectateur des sports yi. maa ngi lay jaajëfal di la remercier si interview bi. Mhm. waaw maa ngi tudd Joseph Layus Samb. Mhm. di zone Teungueth FC latéral gauche. d'accord Là, il bi nga convocation bi ban sentiment nga amoon. waaw trop de bu ma première sélection mhm. locale mhm. comme que pour la sélection bi. Mhm. dem talent dans le le fait que nga am opportunité pour représenter surtout le Sénégal au niveau local lan la lay def. waaw daf may dën parce que yombul quoi joueurs yu bëri neen Sénégal championnat bi tay ñu bolé ma ci ci stage bi quoi si ñi wara a dem représenter Sénégal. Mhm. waaw damay concentré wu rek continuer sama objectif tamit. Mhm. waaw on est avec Ibrahima Diop toujours euh, Ibrahima nuyu nañ la ñu bàyyi nga nuyu téléspectateur des sports yi. waaw fay naa la. Mhm. di fay euh, waa Desport di leen sant di leen gërëm seen teewaay fii. waaw tey jii bi nga jotee sa convocation ban sentiment nga amoon. la fait que ñu woo la ci stage euh, bi fii nii au niveau de Touba Pchela pour équipe nationale locale. waaw yaakaar naa comme yeneen joueurs yu ñu amee yëg yéeg bi rek noonu laa ko vécu ak euh, mbégte rek laa ko dundee ko mbégte mm-hmm. ndaxte mm-hmm. ñu sélectionné euh, si équipe nationale c'est pas facile quoi. donc suñ ko amee rek. Mm-hmm. donc mbégte lañ koy dundee ko d'accord tey jii lii nii ñu la woo ni opportunité la ci yow pour nga représenter surtout le Sénégal au niveau local lan la la def.

ñu convoqué la dina tax nga gëna gor gor ça montre que peut-être am nga cër ci football bi wala am nga ci walu mm-hmm. wa lool dal la lool dal la ci jangé quoi vraiment dama ci jangé ni il faut persévérer rek. Mm-hmm. inshallah avec le temps dal je pense que lépp dina baax. incha allah d'accord euh, tey mën nañu xam sa euh, sa objectif personnel surtout ci stage bi avec l'équipe nationale locale. bon je pense que objectif yi peut-être voilà rester dans le groupe rek je pense que ben objectif bi lolo quoi rester dans le groupe beaucoup ci ñiy dem ci compétition bi je pense que lolo moy objectif ñun ñëpp ñu fi tassé voilà lolo kese la. Euh, en quoi cette convocation influence-t-elle sa carrière euh, ak ses ambitions ambition lolo dafa mos a bokk sama ambition té du fi kase ne ko du fi kase dafa bok sama mbëbët té lii dafa bok sama jaar-jaar. d'accord tay ji say. Euh, objectif euh, personnel ci stage bi. et tout est-ce que mën nga ci ñëwaat. Ah, gëm-gëm la rek xam nga man moom dafa nekk dama nekk nit koo xamante ne balaa may tàmbali dara damay viser lenn te du ma viser lenn tant que aw ma ko rek du ma am jàmm. Euh, convocation bi tey ban influence lay def sa carrière. waaw équipe na euh, sélection moom am nga ko mooy. Mhm. ñu bëri ñu lay commencé ràññee si football. d'accord waaw parce que sélection nekk na loo xamante ne Sénégal rëy na. Mhm. bu demee ba am yaakaar si yow rek. Mhm. maanaam ku nekk. Europe wala feneen ak feneen day xam ne kii nii am na lu mu am quoi. waaw ñu koy sant yàlla bu baax na. d'accord tey ji mën nga ñu wax euh, say objectif personnel par rapport ak convocation waaw objectif avant tout mooy ñun nañ qualifié CHAN. Mhm. avant tout nañ qualifié CHAN. yàlla defee ñu dem CHAN bi yàlla def ñu dem ba jël trophée bi comme suñu.

Et l'eau de permettre de progresser pour, dans, dans l'avenir. quoi. Euh, à l'aide de cette convocation, puis, bonne influence là, surtout sur sa carrière et euh, ses ambitions personnelles. Genre, pour, euh, influence carrière parce que je suis permettre de international. Mhm. Té genre amna recruteur yo xamni buñ la sélection locale genre intéressé aussi quoi. est ce que vous nañu xam objectifs personnels personnels surtout ce stage samay objectif personnel ci stage yi. mooy ànd ak bi dem jouer ci chant bi discuter chant bi quoi. Mhm. donc comment percevez vous opportunité bi nga am la fait que tey jii euh, ngay représenter sa dëkk surtout au niveau local lan la lay def. waaw pour man fierté la voilà toujours euh, ku nekk rêve xam nga représenter sa dëkk voilà en plus après. voilà amna yenen opportunité yu war a war a s'ouvrir yoo xam mm-hmm. voilà dañuy gëna a continuer travail ñaan yalla voilà monsieur ñu si ak ay blessures voilà ñu gëna a continuer si lancer bu nekk ni voilà. d'accord cette convocation influence-t-elle votre carrière ak vos ambitions personnelles. oui oui forcément forcément parce que voilà sélection moom soo ko amee après da lay ubbil yenn euh, portes yi voilà mm-hmm. tax après football bi dina. Je suis a yomb sax mais di nga gën am ay voilà opportunité quoi la convocation bi dafay influencer surtout si sa côté carrière <coughs> ak si sa côté ambition personnelle Je suis wax ci. waaw day joué de sama carrière parce que euh, sélection de day am lu sa carrière ça comme souvent sélection locale nga war a dem joué CHAN. Mhm. tey lan mooy sa objectif personnel par rapport à ce stage. Je <coughs> dama ñëw fii pour maintenir lu vie ñi ñu fi ñu fi jugee li fi bàyyi rek waaw euh, première fois premier qui bi objectif mm. mooy qualifier mm. phase de poule deuxième bi Indi indiwaat ko fi kii bi euh, convocation bi influence-t-elle votre carrière et vos ambitions personnelles. si si. Mm. am na influence bu rëy kay ndaxte jour jour boo xam ne que ni yaa ngi évoluer si Ligue 1. Mm-hmm. surtout da ngay ñaan yàlla am sélection Mais nga. Mm-hmm. benn étape la boo xam ne que ni moom ngay ngay ngay quoi et gagner ni plus la si ñun. Bok. D'accord. Quelles sont vos ambitions personnelles pour ce stage avec l'équipe locale? euh, pourquoi pas ñëw confirmer à euh, ce que effectif pour représenter mon pays Sénégal et que ni suñu demee si jongante boobu nag ñu mën a def li nga xam que nous la suñu ndaw yooyu ba jël coupe bi indi suñu euh, nan pour améliorer ce style de jeu surtout ci côté Souleymane Diallo. bon waaw c'est un coach rigoureux voilà qui est qui qui kuy ligue lu tactique je pense que c'est mon pre c'est mon premier regroupement ci semaine bien voilà te je vois que ni c'est un bosseur donc mon sur le plan tactique lay gën a liggéey technico-tactique bien sûr d'accord je pense qu'avec lui di nga améliorer wu ci lu bëri conseil mon moo le marqué ci à traverser. dire bon je veux dire que c'est la première fois que nous nous nous pour dire vraiment mm, comme adversaire il y a une équipe mais je peux dire que toujours l'équipe indi c'est des c'est des équipes joueuses voilà mais c'est la première fois que nous côtoyer on n'a pas eu l'occasion quand même de discuter mais avec les séances, on voit que c'est une personne qui il fait le maximum possible pour aider nous. Quoi. ce style de jeu, est-ce mhm. que euh, surtout coach Souleymane Diallo, qu'est-ce que tu améliorer en tout cas di leen def lu mën bu soobee borom xam nga moom moom mooy mooy placé waa comprendre mhm. léegi moom mooy xool nag technique ak tactique xool lu ko arrangé jour bi mën a adopté ak système am mhm. voilà mhm. moom di leen def lu ñu war rek bu soobee borom d'accord ah. tey jii ban conseil moom moo la gën a marqué ci sélectionneur waaw dafa doon nit euh, dafa doon nit ku baax ba pare dafa mën dafa mën euh, nu ñu koy de dafa mën communication. Mm-hmm. dafa xam ni ñuy waxee ak jour ba pare day jox day jox nit ki envie soo amul envie sax doo ñëwee doo jàkkaarloo moom da am envie da ngay bëgg a def li ngay def. d'accord tey lan nga bëgg a améliorer surtout ce côté style de jeu ci su Souleymane Diallo. waaw moom moom daanaka man sax est-ce que gënu maa xam sama bopp parce que yoroon na ma waaye moom.

liggéeyal xalé boo liggéeyee mën nga am lu nekk ci football. té conseil yooyu ci la dox ba tey yàlla fii. tay ji ce style de jeu nan nga ko mën améliorer su souleyman Diallo. je pense que coach souleyman coach la boo xamante ne day bëgg jeune day promouvoir tey jeune da lay permettre nga exprimer li nga xamantene ne mo moo ci yow. talent bi nga xamantene ne mo moo ci yow dina la moom lay yee te bu ko yéwé tay lool da lay da lay dimbali dans dans l'avenir je pense que moi améliorer sur, sur, ce plan-là et sur le plan physique comme nous xam en Afrique football dafa dafa donc j'essaie de m'améliorer. Euh, tey bon conseil de la surtout. je pense qu'il me me tout le temps de me prendre mes responsabilités Je na leen li ci donc je responsabilités jël responsabilités. sur le terrain quoi. d'accord donc ce style de jeu bu que bëggoon nga am amélioré améliorer à l'ère de Souleymane Diallo lan lay

ban conseil moom boo xamante ne mu ngi lay wax defal li so soo non def li wala nga changer lii et tout. genre mom daf may wax à chaque fois attaquant tueur la war nek nekk quoi. Mm-hmm. ak lu mënti xew yow tu dois marquer un but même bu dee ben but chaque match sax tu dois le marquer. tay jii sa style de jeu bo fekkoon da nga am lo bëgg a améliorer sous l'ère de Souleymane Diallo lan lay doon. waaw parce que fi moom voilà coach bi daf ñuy daf ñuy daf ñuy wax chaque jour genre quel que soit voilà pression bu ñuy pression ni téye bal bi ba voilà conserver après voilà pour mon su amélioré, améliorer côté a, il a, amélioré. Mhm. donc euh, tey conseil pour la gagner marqué ci mon bi nga ñëwee ba léegi lan la. waaw fi quoi mais amna na wax bu muy wax mooy genre nit soo bëggee dara. da ngay def dara da def dara en plus. il faut aller jusqu'au bout quoi pour chercher loolu non parce que affaire yi moom kenn moomu quoi. d'accord tey jii. Euh, surtout ce style de jeu bu fekkon da am lo koy loy améliorer sous l'ère de Souleymane Diallo lan lay doon. wa moy système yi mooy du faral di def fii di. Mhm. échanger ay postes yi ni mhm. si jeu bi di mélanger wu mhm. parce que j'aime beaucoup ni mi jouer quoi. donc donc dalay lay permettre nga polyvalent. voilà d'accord permettre nga xam boy taxu di terrain yoyep yëpp. consort. ban conseil mom moo la gën marqué ci Souleymane Diallo waaw toujours dañu wax xam lu leen fi indi. Mhm. wa concentré wu leen parce que fi nga nekk ni ñu bari bëgg nañ fi nekk. Mhm. bo fi nekké da nga da nga xam nooy gérer sa place. Mhm. wa du man ma lay gérer sa place yéen ñene xam nooy gérer sa place. d'accord et ce style de jeu boko bëggone améliorer sous l'ère de Souleyman Diallo lan lay doon. Euh, étant tueur quoi. wax dëgg fa yàlla té attaquant égal but té wax dëgg fi yalla mi ngi ay liguey yo xamné que ni machallah ñong ci gis suñu bokku té ñong ci évoluer à 100 d'accord nan nga nan ban ban ban ban euh, conseil mom mo la gëna marqué ci mom durant nga nek fi lo xamantene wax na la ko mu lay frapper à chaque fois nga ci baye xel. Euh, à chaque fois dafa naan ma. Mhm. Euh, foog nga joxe à fond. parce que y a des qualités en toi et que ni wax deug fa yàlla boo ko dinañ la dégg fo xamné que ni moy loolu et que ni bon.

Je remercie tout le monde, je les remercie aussi Yenoa des Sports. Vraiment, vous êtes en train de faire un grand, grand, grand boulot du championnat local bi. merci beaucoup merci beaucoup. nan nga gisee regroupement bi sa coéquipier yi nga xamante ñu ci différents clubs donc lan nga jàng si ñoom. ah fii moom ay Baye Fall rek a fi nekk ay borom baax rek a fi nekk waaye waaye ñoom moom dañuy kaf di ree waaye ñëpp am jàmm en fait waaye. lan la ñuy xaar Marco Diouf ak équipe nationale locale. wa ah, comme dab rek luma la tàmm di wax rek inshallah allah ñu ngi ñu ngi def lu ñu war te inshallah allah dinañ def lu ñu war ba ñi fi nekkon luñ fi bàyyi won ñu ñu la a wat bagage fofu bu soobee borom lan ngay lancer message bon war nga ko adresser sa fan si sa mbokk yi ak sa xarit. wa mhm. ah, man comme d'habitude rek luma leen di wax wa ñu ngi ñu ngi def lu ñu war inshallah allah di ñom dinañ contane bu soobee borom. inshallah ñu lay jaajeufal ah ok merci. nan nga gisee vie de bi fii sa co équipe yi ni ngeen di nekkee. waaw ambiance bi neex na de. waaw fii moom ambiance bi moom beneen affaire la quoi parce que am na gars yi fi yoo xamante ne moom dañoo yaatal seen bopp fii amul kenn kuy jéem a ñor di leneen. Mhm. ñëpp a seen bopp muy mag muy ndaw. moo tax groupe bi moom nice mi ngi dund nice. d' donc tey bu fekkoon am nga message boobu da nga koy adressé sa fan si sa waa sa xarit yi lan lay doon. waaw di leen siyaare ñoom ñëpp rek di wax ne ku nekk ñaan yu may ñaanal yëpp mu may dal si leen wax ni ñu gëna ñaanal. waaw te xamné nit mom ay ñaan rek la soxla fu mu nekk. Mm-hmm. waaw di leen jaajëfal ñoom ñëpp. lan ngay tàggatoo ñi lay seetaan. waaw ma lay ni ma lay ni siyaare rek di leen di leen di leen kontaan si li ngeen toog seenaan émission bi. Mm-hmm. di leen siyaare yow te caméra man ak yeneen gaay yu waaw di leen allez merci beaucoup. tey na nga gisé vie de euh, famille bi entre vous les coéquipiers. Ah, je pense qu'il y a une bonne ambiance entre nous il y a xam nga respect. mais aussi am na ambiance boo xamante ne mu ngi ràññee te loolu je pense que pour groupe pour vie de groupe c' est bien pour pour compétition yu jëm. d' accord message ngay sa fan si sa famille ak am di jàmm. Euh, damay wax na ñu ñu ñu ñaanal ñu ñu ñaanal ñu ñu qualifié ñu permettre Sénégal mu qualifié si prochaine CHAN bi incha allah. Mhm. ñu ñaanal joueurs yëpp wér ñoom wér gu yaram pour mën a euh, réussir tey.

mooy loolu quoi. lan ba bu fekkee amoon nga benn message boo xam bëgg nga ko adressé say fans sa famille ak say xarit lan lay doon. <laughs> waaw mais gars yi nañ ma ñaanal rek sama waajur yeeg sama xarit yi may àndal sama fans yeeg et tout nañ ma ñaanal rek loolu kese laa moom si li may wax. Mm, looy tàggatoo. waaw maa ngi bëgg ñëpp rek comme tap. Mm, merci beaucoup euh, tey jii nan nga gisee groupe bi.

ça me motive vraiment que ñu a continuer rek quoi parce que nit moom su amee ku koy soutenir rek après lu muy def da siy gën a olaat da siy gën a sawar. d'accord noonu wax kontaan naa si ñoom trop. lan ngay a ñu lay seetaan. waaw maa leen di nuyu yéen ñëpp voilà di leen remercier. Mm-hmm. di wax ni que euh, ngeen gën ñu soutenir rek voilà parce que. <laughs> d'accord merci beaucoup. tey jii nan nga gisee vie de vie d'équipe bi entre waaw fii moom nice moom fii moom boo ñu gisee day foog nañu ñi sax ñoo bëgg club. Mhm. te euh, ñu si bëri fi nga xamante mhm. waaw loolu moom. Mhm. naa ko wax ko waaw. bu fekkoon am nga message boo xam da nga koy adressé sa fan si sa mbokk yi lan lay doon. ak ñi lay seetaan gudd. dama lay wax ñu sànni waay ñaan rek. ñu xaar tamit layus tamit. Euh, dina jéem a góorgóorlu ba bokk si ñii di dem qualification incha allah. d' lan ngay tàggatoo téléspectateurs yi. waaw maa ziar waa Tëngéej bépp. di leen ziar yi ñi bi des sport mhm. di leen wax baax jaajëfal mhm. di wax di bu baax ah, nan nga ko gisee ambiance bi et cetera et tout waaw dafa mel comme ñun ñëpp xamante nañ ndax nekk Ligue 1 bi di jouer suñu biir et que ni suñuy demee ba dajale ñu suy nii c'est juste que ni pour ñu euh, xamante davantage ak ambiance bi nga xam ne que ni mi ngi si am bu baax a baax a baax te mhm. c'est à saluer quoi ndaxte yombul nga indi ay joueurs yoo xam ne que ni c' est la première fois ñu nekk et que di régner. si mhm. groupe bi kon bokk félicitation ak gars yi fi bu fekkoon am nga message boobu da nga seetaan sa fan si sa mbokk yi lan lay doon. Euh, di leen wax ne maa leen di jaajëfal bu baax a baax a baax si bége bi ñu may bége. Mhm. di leen wax ne que ni yoon bi yemul fii et que ni incha allah. Mhm. dinañ def lépp lu ñu mën ak lu ñu mënu pour satisfaire leen. incha allah lay tàggatoo ñi lay seetaan. jaajëf jaajëf jaajëf. maanaam tey ñu yendu fii euh, à Toubab Dialaw. Euh, de euh, nan nga gisee effectif bi fi nekk. un stage Wa effectif parce que le euh, groupe groupe qui est parce que groupe Sénégalais peut-être nous sommes est parce que nous sommes yor forme du moment parce que qui que quatre journées donc euh, sur le sélectionneur national local sur Diallo def na ay liste liste est liste donc liste ça veut dire que possibilité au fin pour le meilleur groupe possible pour

xam nga tey bo boo entraîneur bu nek loolu lay ñaan yalla am am jour yu yu baax a baax nga xam tan bi lay metti parce que ku ci nek warna na mérité li nga xam ne sélection bi parce que aussi du sélection de club sélection nationale la ku ci nek euh, am nga droit mën nga ci bokk tey jii bu souleyman amé poste bu nek mu koy triplé mu am les meilleurs du championnat loolu moy li li baax parce que bu tànnee dina tan li nga xam moy la crème parce que buñu faté ñun ñoy champion d'Afrique et que buñu ñu demee jouer ak Libéria bi di ñew pour décrocher la qualification buñu démé fi nga xam moy mooy CHAN bi ci Kenya waruñu wane beneen visage lolu une meilleure visage du Sénégal bay euh, c'est vrai que euh, ñun suñu bop ñi nga xamne ne yoruñu équipe bi day nekk casse-tête nan kan mo war dem kan mo war tok ku ci nekk war dem ku ci nekk am choix am mais le dernier mot va revenir aux sélections nationales mom mi nga xamne mo nekk au quotidien avec les joueurs mom mi nga xamne euh, dina xam environnement joueurs yi sur le plan mental sur le plan technico-tactique sur le plan physique sur le plan affectif sur le beaucoup de plans yo xamne da koy xol yo xamne yow mun nga ko bañ a gis man mun naa ko a gis moom da ko gis parce que il est au quotidien avec les joueurs donc mom mom choix bobu di ñaan rek mu nekk choix bi nga xamne peut-être euh, moom mooy nekk suba ndamelu Sénégal. Malla Sané ma nga tàggatoo téléspectateur des points. yi. waaw di d' abord dañu lay remercier ci ci liggéey bi nga xam def nga ko di remercier euh, euh, monsieur monsieur Souleymane Diallo mi nga xam ne entraîneur national bi di remercier aussi la direction technique nationale parce que aussi c' pas facile pour ñu def immersion fii. di la jaajëfal ci liggéey bi ak ñëpp ñi nga àndal Diop Ba ak. Khadim Bamba pour le site di sport.sn. merci beaucoup le tacticien merci beaucoup à l'équipe équipe bi nga xamante ne ñu dalal fii merci beaucoup à ki nga xamante ne mooy Mayacine Mar moom ñu yombalal liggéey bi merci beaucoup à l'entraîneur Souleymane Diallo moom mi nga xamante ne lépp li ñu soxla rek euh, tey euh, bàyyi nañu ñu def ko donc c'était pas facile donc je remercie également les joueurs donc lii lañ leen andiloon ci seen immersion bi nga xamante ne ñëw nañ ko def fii ci centre Jules François Bocandé tey ñu ñëwoon 7C équipe locale bi ñu jàpp que ne kat mëna représenter le Sénégal pour euh, la CHAN 2025 donc jël nañu li nga xamante mom moy coach bi waxtaan ak mom ci perspective yi nga xamante ne war na entamer ak équipe bi waye objectif bi nga xamante ne am na ci côté benen bi jël nañ li nga xamante mom moy l'avis des joueurs ñom biñu ñu jotee seen convocation nan la leen def seen objectif bi nga xamante ne am nañ ko fii nii ak seeni rêve également remercier suñu partenaires à chaque fois nu ñuy jàppee ci liggéey bi donc li lañu andi immersion bi nga xamante Nous nañ ko on se dit à très bientôt